nuyu naa leen mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan euh, ci BFTV Sénégal di leen ziar bu baax a baax di kontaan seen émission bi nga xam ni moom mooy Annu 2 ñu koy amal ayu bés yu jot di ci dalal euh, ay kàngam yoo xam ne seen xam-xam dafay màcc jëm ci wàllu politique wala ci domaine ba ñuy yëngu tey ñoo am bu yaatu di ci dalal euh, Moustapha Mboup muy président MUR mouvement pour l'unité la le rassemblement ci biir émission bi daa ngeen gën a mën a xam kan mooy Moustapha Mboup Moustapha nuyu naa

Moustapha ingénieur là, mu agence nationale pour les énergies renouvelables mais également Moustapha est président mouvement pour l'unité et le rassemblement di mouvement boo xamante ne di ko tax a wax département de Mbacké la am ci biir émission bi dinañ développer plus davantage hum, euh, comme nous nga ko waxee Moustapha doomu Mbacké la fi nga jàngee fi nga defee lu baré bari euh, Moustapha nga jóge Sénégal nga dem bitim réew ngir le sa jàng ben jamono nga ñëwaat Sénégal plus précisément Mbacké tay bo ñu doon jox ay leral lan lañ mëna japp ci loolu. euh li waral lu mel noonu Seydina Alioune euh, ñun dañoo bokk ci japp ne nit amul lu réew réewam te amul lu dul goxam looloo waral ñu ne bu ñu jàngé ba noppi dañuy ñibbi ci suñu réew jariñ ko jariñ suñu askan ndax yaakaar naa bu ñëpp toogee kan mooy defar réew mi te Mbacké ñun rek la am. ay doomam te yaakaar naa ne Mbàkke tollu na foo xam ne doomam yi fu ñu mën a nekk si àddina war nañoo booloo war nañoo dellu si dëkk bi war nañoo defal ci dëkk bi ndax kenn duñu ko defaral ku ñun loolu tax nga tax taxawal sa mouvement bii di MUR mouvement pour l'unité et le rassemblement mouvement boobu yan leeral ngañ ci mun indil liñ ci mën a indi bari na lool ndaxte mu muy mouvement pour l'unité et le rassemblement boo ko doon tënk ci wolof

ndax bariwul ay doomi Mbàkke yoo xamante ne am nañ ay responsabilités yu bari ci réew mi te boo ko seetloo Sénégal ni muy doxee da gis nit ñi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fal leen fi ñuy gën a def mooy seen dëkk mooy seen i gox-goxaan te bu fekkente ne Mbàkke amul lu mel noonu kan mooy jëmale Mbàkke kanam defe naa loolu benn pàcc la ci waaye itam bu ñu seetloo anam bi ñu defee politique ci département bi daanaka nit ñi dañoo xàjjaloo looloo waral ñu ne dañuy seeti ñëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw te du am xaj seen ngir fexe ba boole doomi Mbàkke yépp pour ñu nekk benn pour bu ko defee defe naa ne buñ bu ñu booloowee lu ñu song danañ ko daan te lu ñu bëgg danañ ko am te yaakaar naa ne euh, boobaa cër bi Mbàkke war a am ci réew mi dëgg-dëgg dana ko dana ko jot looloo waral ñun ak doomi Mbàkke yu bare bari xalaat te kuréel gi nga xamante ne teg nañ ko tey muy mur déggee sa wax da nga soobu ci politique muy terrain bu metti lool te yàgg loolu fii ci Mbacke nga fekk fi ay leader mhm. nga doon ndaw mhm. ndax yaa ngi sóoraale méttiwaay geeg maanaam enjeu yi nga xam ne nekk na ci politique bi euh, bu baax a baax euh, ndaxte ku ne Mbacke wax ne Serigne Touba fii la gane àddina mhm. yaakaar naa ne ki nga xamante ne mooy suñu royuwaay dëgg mooy moom te man jàpp naa ne li ëpp solo li ñuy jàngee ci moom mooy yitte ju kawe lolo waral yonent bi alayhi salaatu salaam bi ko feeñoo daf ne ko rabbil ashabati bil himma walaatu rabbi bil dasifahat sa talibe yi bu len yar kesse ci jàng waye dag len yar ci yitte ju kawe kawe lolu mo waral bi ko yonent bi feeñoo mu daal di koy wax ne ko da koy jox maqama mujjadit ak lolu limi kawe kawe kawe da ko wax ne amna lenen lu gëna kawe lu tek batam te yakarna ni bim noppé liggéey moy khadim rasulillah xaadim bi muy samp liggéeyam moom ak ñam àndaloon defe naa ne ay ndaw lañu woon bi muy samp yoonu Mouride te yaakaar naa ne loolu moo jur lii tey ba tawféex bi am ci département bi te ku xool loolu waroo ragal parce que ñun Sëñ Tuubaa mooy suñu weeruwaay donc lu ñu ragal waru cee am moom wax na ne ñaaru ko jaaxal ku yàkkamti ak ku ragal te yàkkamti sama waajur daf ma daan tegal ne nit ñi dañ koo def te mat ko mu ne ma ragal nag ndaw ñi dañ ko def waaye yéen loolu du seen cër donc dama yaakaar ne bu ñëpp seetaanee wala nga ne yoon bii de metti na tax ba ñëpp toog kan mooy jug ngir defar dëkk bi defe naa ne loolu bu amee nag foog mu am ñenn ñoo xam ne dañuy jub dëkk bi jaral leen ñu jug ngir dëkk bi jëm ci kanam te loolu yaakaar naa ne mooy su mooy suñu wéeruwaay te itam lu ne jaral nañu ko ngir département de Mbacké mën a jëm kanam. ci dëkk bi muy euh, Mbacké te it euh, ku wax sa waajur wu góor wax ci taarixu politique mënoo ko ci génn def na ci lu am solo. Mhm. waaye toujours mu mel ne Mbacké dañu ko fàtte dañu ko boddi. Mm-hmm. infrastructure amul ak yeneen ak yeneen comme ni nga koy faral di waxee yow tey loolu ban gis-gis nga ci am. lu jiitu loolu sax bu ñuy wax Mbacke fii Mbacke commune bi laa ci jublu ndaxte yàlla def na ne Mbacke mi ngi doon commune en 1957 te loolu yaakaar naa ne jiitu na indépendance boobu ba léegi da ngay gis département bi laay ñëw tey da ngay gis ne eh, ci li xam quatre ministre la mës a am ki ci njëkk mu nekk duutu ci Thiam. nekkoon ministre des affaires étrangères sous le président Senghor nekkoon maire de Mbacké tegaat ci Samba Yalla Diop mu nekk maire de Mbacké nekk ministre de l'hydraulique tegaat ci Iba Iba Gueye mu nekk maire de Mbacké aussi également nekk ministre de la jeunesse du sport ak Moussa Sakho boo seetee loolu bala maa ñëw ci infrastructure yi ak dayo bi nga xamante ne Mbacké am na ko ndax liggéey bi sëñ bu mag bi def ak tawféex bi ak euh, ak xéewal gi tax na ba ñëpp bàyyeekoo nañ fañ ne ñëw dëkk ci dëkk bii nii ak limi am am am am day wax da ngay gis ne ba senegal soso ba legi 4 ministres rek lañ ma sa am te yaakaar naa ne loolu rek ko setlu da ngay xam ne Mbàkke des na ginnaaw bu baax a baax a baax baax te doomi Mbàkke yi da ngay gis foo mën dem ay cadre yu bare bare bari ñoo ñoo ñoo dëkk Mbàkke man daf may dal lu bari nga génn ci bitim réew wala ci biir réew mi nga dem ci ay ndaje ngay gis ay nit yoo xam ne da nga leen wax boo leen waxtaanee ñu ne Mbàkke nga dëkk te boo boo leen laajee lu tax doo leen ñëw Mbàkke dañ naan wax anam bi ñu defee politique moo tax duñ ñëw Mbàkke loolu tax na ba nga xamante ne infrastructure yi nga xamante ne Mbàkke waroon na ko am dëgg dëgg dëgg dëgg Mbàkke dese na ko am te loolu jàpp nañ ne ngir mu mën a am il faut que doomi Mbàkke yi booloo doon benn ba cër bi ñu war a am ci réew mi ñu am ko bu baax a baax a baax te ku am ab seetlu da gis ne ci at yi Mbàkke dafa gën a dellu ginnaaw boo demee ba dëkk yi ñu gën a jege rek nga xam ne soriwut lañ fa def ci infrastructure Mbàkke amu ko loolu nag dafa war a benn jamono mu am ab taxaw seetlu benn jamono nag doomi Mbàkke yi booloo doon benn def benn rupture fexe ba nga xamante ne li ñu war ci réew mi ñu moom ko ñu jëli ko te loolu nag devoir la sax te yaakaar naa ne dañ ciy dox jëm. nga ko daal di lim ñoo xam ne tey jii doon nañ yëngu ci politique. Mhm. tey am ñoo xam ne fekk nga leen fii. Mhm. Euh, sa diggante ak ñoom ak seen taxawaay ban gisin nga ci am. Euh, wax dëgg yàlla boo xoolee ñun de suñu bëgg-bëgg. mooy dañuy wax ne lépp lu ñu def dafa war a nekk ànd ak yar ak i teggin ndaxte lum la lum la mayu rek du la ko xañ te suñu bëgg-bëgg mooy ñi fi ne suñu ay mag lañ donc ñoom ñëpp ay wax dëgg yàlla ay relation yu baax a baax lañu am ci ñoom waaye ñoom ak ñun jàpp nañ ne bokkuñu yoon ñun li ñuy def yàkkamti wuñ ci dara dara dara dara dara suñu bëgg-bëgg mooy Mbàkke jëm ci kanam naam wax dëgg yàlla gis nañ ne amaana ñenn ñu baree bari ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci politique ci Mbàkke ñu bari seen i intérêt rek moo leen tax a jóg waaye dëkk bi des na bu baax a baax looloo waral doomu dëkk bi des nañoo gis seen bopp ci ñii fi ne waaye nag wax dëgg yàlla am nañ ci ay mag am nañ ci ay jàmm am di jàmm am nañ ci ay wëllëre bu baax a baax jàmm rek lañu la ñu seq ak ñoom amaana gis-gis bi ak euh, ci dëkk bi rek moo wute mais ñun suñu bëgg-bëgg yàkkamti ci dara dara mooy fexe ba waa Mbàkke doon benn fexe ba xeex def ay cellule fexe ba ñëpp ci doomi Mbàkke yi fu ñu mën a ne ci biir réew mi ci biti réew ci biir dëkk bi ak ci biti dëkk bi yépp ñu boole leen ñu def be ñu doon benn fexe ba cër bi nga xamante ne waa Mbàkke war nañ ko am ci réew mi ñu jot ci loolu nag moom yàkkamtiwuñ ci waaye itam dañ koy ànd ak yar ak teggin parce que yaakaar naa ne kii nga xamante ne mooy figure bi ëpp solo ci dëkk bi euh, wax dëgg yàlla mooy suñu royuwaay ku ko xam xam ne yar ak teggin rek la ñu war a jàngee ci moom téere bi mbind ci nax ju rek wane la lu lu bare bare bare bare bare bari ci loolu loolu tamit dama ci profité waale lancé benn appel ci doomu département bi yaakaar naa ne politique jarut lu bare bare bare bari ndax fii koo fi laal sa mbokk la te yaakaar naa ne te benn bopp kenn mënu koo xarñaar donc dañoo war a rafetal dañoo war a xam ne ñun ñëpp lu ñu tax a jug jëkk bi la donc lépp lu ñu war a seex ñu rafetal ko fexe ba ñu boole suñu xalaat fexe ba booloo doon benn fexe ba dëkk bi nag moom daal di jëm ci kanam. mënuma jeexal te waxuma ak yow lu jëm ci élection yi ñu jëm muy élection locale Moustapha dafa nekk candidat wala dafa am ku muy soutenir ndax souvent dañuy gis euh, jeunes yi nga xam dañuy def politique bu ñu nekkulee candidat am na ñu ngi naan leen booyu diw Moustapha booyu kan la. Moustapha booy waa Mbàkke la donc li ñu tax a jóg wax dëgg yàlla du ay élection jamono bii nii comme ma répété waat ndax tubaab day wax ne la répétition est pédagogique donc li ma tax a jóg ak waa mur yëpp mooy seeti doomu département de Mbàkke yi fu ñu mën di ne ñu fexe ba booloo fexe ba teg benn communication fexe ba teg ay action yoo xamante ne day amal njëriñ dëkk bi te liñ ciy def yàkkamti ci dara ragaluñ ci dara donc élection wala jamono bi du suñu wax dëgg yàlla penchant te buñ ñu demee ba am ci xalaat ak nuñ ci war a doxee bu moment bi jotee danañ ko wax waaye jamono bi nag wax dëgg yàlla Mbàkke rek moo ñu itteel. Euh, Moustapha Mboup euh, président mouvement pour l'unité et le rassemblement sant naa la gërëm naa la lan nga bëggoon a wax loo xam ne samay laaj yegewu ko. wax dëgg yàlla euh, damay profiter ci occasion bi pour lancer benn appel doomu département de Mbàkke yépp tàmbali ko ci commune Mbàkke ndax fii lañ dëkk. fu ñu mën a nekk ci àddina fu ñu mën a nekk ci bitim réew ak ci biir dëkk bi ñu xam ne wax dëgg yàlla ñun seen doom lañu te li ñu tax a jóg mooy euh, wax dëgg yàlla dëkk bi jëm ci kanam te euh, yàkkamti ko te Mbàkke ñun ñëpp ñu booloo doon benn te yaakaar naa ne suñ booloo doon benn lépp lu ñu bëgg ci àddina danañ ko am jot na wax dëgg yàlla Mbàkke am cëram ci réew mi jot na doomi Mbàkke yu baree bare bare bari am ay responsabilité ndaxte dayoo département bi euh, wane na loolu donc euh, bu lépp jàllee ñu ngi delluwaat di leen sant wax dëgg yàlla di leen gërëm ci émission bi euh, di ñaan yàlla suñu borom kàdd yi nga xamante ne bëral nañ ko mu am njariñ te fi ñu bëgg mu àgg fa yépp mu àgg fa incha allah. maa ngi profité ci occasion bi wax dëgg yàlla di remercier membre miir yépp gis nañ ñépp seen taxawaay ci li nga xamante ne doon nañ ko taxawal. muy safar parce que dañuy wax dañoo waxoon ne li ñuy tàmbalee activités yu njëkk mooy safar ngir fas yéene ci sant Sëriñ baax ndax weer wi rek la am maa ngi leen di sant bu baax a baax di gis seen taxawaay euh, di wax dëgg yàlla di wax ne amuñu sax ay kàddu ngir beral lu mel noonu bu loolu jàllee aussi ñi ngi tàllalaat suñu loxo waa Mbàkke yépp di leen wax ne daal mur mi ngi noonu te li ko tax a jóg mooy lu jëmale Mbàkke ci kanam donc jamono bii nii amul benn penchant lu dul Mbàkke rek moo ko yor te yaakaar nañ ne bu ñu àndee rek lépp luñ bëgg danañ ko am maa ngi delluwaat di sant sant di la sant Seydina Alioune bu baax a baax ci émission bi di la ci jaajëfal bu baax a baax. jaajëf euh, Moustapha Mboup président mouvement pour l'unité et le rassemblement maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci la disponibilité di sant di gërëm tamit ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci TV Sénégal seen émission à nous deux la woon présentation Seydina Aline réalisation et cadrage Biram Faye di sant ñëpp di leen gërëm di leen jox dig daje beneen yoon jaa ngeen jëf.